Mamadou Wane maa ngi lay nuyu. maa ngi lay nuyu bi le sant également di nuyu sa auditeurs Mamadou Wane nga nekk sociologue et spécialiste en analyse politique déjà euh, cent jours président Diomaye nekk ci bopp réew mi euh, ban jàngat nga si def ban bilan nga si tiré positif wala négatif. bon non mais man man euh, lu ma jàpp mooy maa ngi sant yàlla d'abord peuple sénégalais bi ah yaakaar naa aussi que ñu euh, ngi njëkk a le premier ak yi nekkatuñu di xalaat di jàppay nit euh, euh, di di di jaay doole état nekk di jaay doole nit ñi di def leen neex ñu ñu teg ci peut justice bi kumba amul ndey kumba amul je ne pas nu koy waxee forme bi. voilà voilà déjà loolu man man ci sant yàlla Sénégal yëpp ci parce que lu ñu jot ci vivre yi euh, ci ñaari at ci régime bi passé dafa mettoon ci Sénégalais yi euh, psychologiquement dafa mettoon maa aussi di saluer initiative yi nga xam ne président de la République nekkatul secrétaire général de parti ak en tout cas euh, bon démissionné na bien ak un partisan tout ce même au service du peuple loolu maa koy rafet pour des mandats nekk ministre nekk maire doole ci nekk député loolu yooyu loolu loolu déjà aussi man euh, yaakaar lu baax la boo xam ne loolu nga xam ne ñoom ñëpp daf ñu si gis naa seen déclaration de patrimoine yooyu yëpp gouvernement bi daf koy ko maa ngi rafet aussi aussi nga xam ne jël nañu ko béykat yi béykat yi parce que ñoom dañu jël pouvoir bi war a préparer nawet bi yaakaar naa ne mesure division bi moom ci ciy sant ñuy sant bon léegi aussi euh, coût de la vie dafa métti ñuy xam nañu yàlla tudd certains ménages yi ñuy góor ak jigéen xam nañu dafa métti donc mesure d'allègement déjà euh, xam ne symboliquement lañ jox rek ñu ñu demee bu wàññi ko léegi di paquet bi à cent cinquante francs franc lañ jox ci pain yóbbuñu fa parce que production ba léegi gars yaa symbolique tant on teg yeneen aspect yi bon au delà de ça ci soo xoolee bu baax aussi ñu ngi rafetlu ñu euh, euh, nga xam ne bon yenn ministre bu xam ne dañuy séntu ñëpp ñu amoon responsabilité te ñu dënk leen à l'économie ñoom ñëpp commencé nañu yóbbu naan suñu waay ñaanee waaw ñu def comme avant ak kooku ñu wax ko dama jël dama tudd dossier yi ñaanee dossier yi. ba lépp leer boobu moom il faut mu leer parce que gestion bi tam loolu la redevabilité bi aujourd'hui tey parce que loolu parce que li indi nañu pouvoir la c'est une révolution citoyenne donc ñoom ñu xalaat ne jox nañu leen pouvoir bi. na sax man par exemple justice moom maa ngi rafetlu dialogue ah, parce que dialogue daal mais mënoon nañ bañ a dialogue sax parce que beneen di fal Sénégal ñu gënoon tumurànke justice na waroon nañ jël tout de suite ay mesures yi nga xam ne ñëpp d'accord dañ ciy d'accord dañ ciy d'accord dañ ciy d'accord donc man yaakaar naa ne aussi bon maa ngi jël aussi dañuy toog dañ jël pouvoir bi rek tabas bi ñëw yaakaar naa ne ñëpp rafetlu nañu aussi ñu gérer situation surtout parce que lu mu mel ci Sénégal yi amul fenn lu mu ko mel ci ci ci monde bi parce que aussi dina xam solution c'est pas évident c'est pas évident donc loolu maa ngi rafetlu loolu mais am na te bëgguñ dox gisuñu lu ñuy def te chaque mois lu lu doon jiw état bi bees da daa ngeen ci fay daa ngeen ci fay bu gan lan la ñu payé leen Sénégalais yi lan la ñu payé leen Sénégalais yi parce que amul yeneen urgence ci éducation santé et cetera donc pour moi donc je loolu problème boobu problème la ba léegi ci man problème la aussi ba yenn léegi kenn xamul loolu aussi euh, ki nga xamante ni moom mooy président Diomaye Diakhar Faye war a taseek ak ñenn ci la presse sénégalaise naka nga gisee euh, déjà euh, initiative boobu. initiative boobu parce que ñeneen ñu ñu fi nekkoon euh, ñeneen ñu fi nekkoon surtout régime bi ñu woon loolu parce que ñoom dañoo amoon benn genre complexe tout le rek ay trans média trans yi lañ am donc voilà donc man maa ngi rafet que véritablement première sortie médiatique véritablement bu am bu am solo daal avec euh, la presse la presse nationale la presse nationale parce que loolu tam aussi man d'accord naa ñu am ci benn préférence nationale question souveraineté aussi ci noonu lay commencé c'est comme sur soo ko xoolee bu baax politique maanaam ki du extérieur ak yooyu maa ngi rafetlu que président de la république fal ñu ko rek mu jël premier avion dem Paris parce que gis nañu fii ay nga xam ne dañ leen fal ñu dem Paris ñu wan leen ay Élysée di leen dem ba dugal ci ay waañ Élysée yooyu alors qu'il venait juste de prendre le pouvoir donc pour moi loolu lu am solo la lu solo la mais en même temps maa ngi ñaan ni ñu profité ji pas pour régler ay compte ou bien servir yeneen intérêt ah yeneen intérêt lu dul intérêt sénégalais yi parce aussi dafa war a recentrer wu uniquement intérêt national intérêt sénégalais yi ñi ni xam ne amuñu baat ah, ah, nan la ñuy relayer ah, ñi nga xam ne amuñu baat ñi nga xam ne duñu mën a jot ci président de la république ñu mënuñu jot ci premier ministre ñu poser yenn question yi nga xam ne day am solo lool ci fu yoo xam ne amuñu xëy dana am nanu tudd solo lool ci ñi xam ne tey xëy na ñu bon ñu ñaan ndox ñëw mais ba ba léegi dañuy dañuy tiit sax su taw parce que ñu xalaat inondation te milliards yi dépensé kenn xamul lan mooy efficacité tudd foofu rek sur ce plan là dund bi tam même su dee wàññi nañu ñu ngi rafetlu wàññi yi ah, mais quand même ba léegi dund bi métti la bon xëy na peut-être waa politique une question wàññi wàññi wàññi wàññi mais aussi peut-être que war nañu gëstu surtout les jeunes ah, surtout les jeunes suñu population bi est sa jeune très jeune plus de soixante dix pour cent de gànnaaw ci ci euh, au moins de trente et quelques ah, c'est énorme donc kooku yëpp permission la lan moo ci lan euh, la tudd euh, lan moo ci euh, solution bi lan mooy solution aussi que par exemple euh, train de vie de l'État du wàññi ko carrément nañ ko wàññi ñu jël ay symbole bu fort symbole bu fort Sénégal yi bëgguñu gars yi nekk fii comme ni ñuy wax yow yaa ngi fii président conseil d'administration topp lay fay ay cinq millions te kenn gisuñu ay deux millions wala millions même su dee deux cent mille lay fay gisuñu ko et puis ñi ñi nekkoon fii ba fi nekk système bi ñu fi nekkoon ba léegi moo fi nekk assemblée nationale ñoo fay majoritaire conseil économique ñoo fay majoritaire euh, au conseil des collectivités locales ñoo fay majoritaire soo xoolee bu baax ñu en encore pouvoir municipal te kenn kenn xamul lu ñuy def quelle est la différence amul kenn ki nga xam ne mën nga ko gis tey yow yow en tant que sénégalais tey soo bëggoon dans quarante huit heures dix benn responsable politique aussi euh, bien au niveau de l'État qu'au niveau des municipalités. C'est tout un problème. Tout un problème. On doit revoir tout. Parce que ci période révolution lañ nekk période rupture on doit tout revoir ba leen di kàcce lu muy jariñ damay jox rek exemple yooyu yëpp il faut se mettre au service du peuple si vous n'êtes pas au service du peuple war ñu nangu di continuer di la fay ci dén ci ci xaalisu peuple bi l'arrogance la distance une fois mu fàlle te mëntu la jot loolu yooyu yooyu c'est des problèmes réels xanaa xaw ma aw ma jot kenn mu am kenn mu am jot kenn mu jot mais yow def nañu ci benn kii public war nga am jot sinon c'est pas la peine da ngay dem ci secteur privé même dans le privé mais il faut ñu am faut ñu am donc moi de gouvernance bi dañ ko war a xoolaat dans l'administration lan moo ci changé. nan moo changé dans l'administration les mêmes sont dans l'administration les mêmes qui ont conduit la politique impasse administrative da ngay bind lettre courrier doo jot réponse ou bien nga toog xaw ma te combien de temps c'est pas normal loolu bëgg sa kayit juddu pour nga am ko c'est la croix et la bannière <laughs> mais loolu tam war nañ ko xool Euh, naka nga gisee opération de déguerpissement yi nga xam ne actuellement autorité étatique yi communale yi euh, ñu ngi koy amal songu marché yi di déguerpir commerçant yi gis nga euh, fitna bi nga xam ne moo am récemment aussi ca marché Sandaga ban gis-gis nga si am Mamadou Wane mooy dëkk dañ koy defar dëkk dafa war normal mais marchand ambulant yi rek ñoo nekk situation bi nga xam ne daa war di leen dëgër même ñuy def commerce demal ci mbedd yi da ngay gis kuy def commerce jël moitié bi nga xam ne ci trottoir bi la c'est pas normal dëkk bi si ku mu neex damay jox rek exemple doo daan yi ku mu neex defar si doo daan c'est pas normal tey da ngay ñëw yenn mbedd yi ñu baare ko ñu ngi bâché bâché parce que ñu ngi ganale ñu ngi kii ñu ngi def loolu waaw ba pare bokki la circulation yooyu yëpp c'est pas normal c'est pas normal à mon avis que bon marchand ambulant pourquoi ñu nekk marchand ambulant pourquoi ñu nekk marchand ambulant pourquoi suñu dëkk yi bari ay marchand ambulant ba nga xam ne tey Sénégalais même ci diaspora bi soo demee foofu par exemple ay Italie nga dem États-Unis nga dem ay ay ñu ci bari ñuy def ci euh, ci ci ci ci ñu ñu bokk oubien ñeneen ñeneen lañ wax mais pourquoi maanaam loolu c'est parce que y a dafa am échec yenn politique yi surtout les jeunes dafa am yenn politique yi surtout les jeunes. Euh, donc politique économique yi war nañu xool emploi yi war nañu leen xool tey marchand ambulant yooyu c'est des jeunes ci ñu leen defoon ci ay projet agriculture euh, entreprise familiale bi ciy gagné bi ci gagné décemment et puis de l'argent de l'argent dans le cadre de la souveraineté alimentaire dans le cadre des emplois verts nga xam ne lutte contre le le le dérèglement euh, climatique le changement climatique suñu ci woon mais gën a wànq une partie de notre jeunesse amul ñu nga xam ne des se yi nga xam ne feneen ñu jóge tekkiwul dara mais ñu seetaan leen donc à mon avis d'accord naa que ñu assainir xool mais ça doit être dans le cadre d'une approche globale économique warul doon rek dans le cadre mairie ko et puis am na mairie yu bari yi nga xam ne pourquoi ñu xaar ba léegi di ko def pourquoi ñoom dégg na au pouvoir def ñu yenn

jërëjëf ñuy fàttali ni Mamadou Wane sociologue nga nekk spécialiste en analyse politique jërëjëf Mamadou Wane